centenaire di gërëm waa Gibraltar di gërëm waa champ de course di benn loxo waa Médina di rafetlu jotaay bi et ni ngeen ko waxee sànq ba tey ma ànd ak Bamba Fall àndu nawle la àndu principe la ci nit ñoo xam ne dañoo bokk ay valeur réew mi nag ñu bàyyi weer ci benn fan loolu lañuy wax pourquoi parce que boo gisee Bamba Fall ak gëm sa bopp dafa nekk alliance boo xam ne alliance bu wóor la alliance de principe la comme ni ma ko waxee li ngeen ma wax ne incha allah au soir du 22 23 janvier 2022 je n'ai pas de doute que première commune bi coalition Gëm sa bopp di gagner Médina lay je n'ai pas de doute là-dessus parce que xam na fi ko waa Médina teg et c'est le lieu de dire que c'est raar na ci maire yoo xam ne am nañu bilan bi mu am liggéey bi mu def ci Médina yaakaar naa ne am na suñu benn yaay bu ko wax léegi du lu ñuy natable parce que c'est quelqu'un de très engagé pour sa commune et loolu je tiens à vous rappeler que Bamba Fall est une chance pour la Médina. li gën a yokk suma ànd ak moom wax naa leen ko parce que dañu bokk ay valeur parce que li ma wóor mooy bu doon lu mu mos rek dem na fekki waa mburoog soow ndax yàgg nañu koy topp bu doon lu mu téye rek pour boppam ñi nga xam ne ñoo fi nekk yàgg nañu koy teg bët te li ma wóor ci lu ma xam man mooy lu ne proposé nañu ko ko waaye bu ngeen dee wut gor jàpp leen gor a ngi nii moo tax c'est le lieu de le dire bi gaa yi defee seen yëfi njublan sur la mairie de Dakar ma gis benn journaliste bind benn article dinaan est-ce que Bamba Fall jaayul Bougane ma ne ko parce que xamuloo rek parce que man su ma amee xalaatu dem mairie Dakar moom mii la parce que nekkutoon suma xel mais moom ci analyse am parce que je sais que c'est un fin politicien ci yéeneem ci xolam bu yaatu bi ma nee ko Bamba dama bëgg nga dem mairie dakaar dane ma déedéet bu ma demee mairie dakaar damay tànn diggante Medina ak Ndakaaru te man Medina moo ma gënal. ci loolu la ñu décidé ne man maay dem mairie Dakar kon lenn lu ci waay di wax rek nga baal ma da ngay météo rek mais li wóor mooy man ak moom réeroo wuñu mais comme dañoo nekk ci réewu wax dafa am jikko ju ñu sàlloo man ak moom nañuy jëf rek ba keroog suñu borom di fay wax bàyyi jëf moo tax bi mu ma waxee ne dafay def un programme de dix meetings au niveau de la Médina ma ne ko continuer rek man biir na ma ne yaa ngi ci kon boo gestoo di ma gis te saa soo xoolee ci sa kanam boo ma gisulee wala bu ma la gisulee man dinaa wàññeeku ñëw jël si la kon mu biir ma ne ànd bii nga xam ne ànd nañu ko ñu ñaan suñu borom di ñaan kenn ku nekk ci yéen mu ñaanal ñu suñu borom saxal ñu ci njub parce que ànd wi àndub njub la njub boobu dafa am solo lool ci doomu aadama ma am mbégte lool. ci teewaay bi nga xam ne teewati naa ko fii tey et moom mii bu doon sagom saa su ne lu muy def gis ma ci wetam parce que biir na ma ne loolu moom mooy yéene bi ñuy dem mairie Sacré-Cœur dama ko wax ne ko mais Bamba bàyyil ma jiital gars yi rek comme man dama sol suma dàll di wër réew mi on a presque trois cent candidats dans trois cent communes je dois m'y pour prêter main forte à ses candidats mu ne ma bul bu la neexee demal fu la neex Sénégal ndakaaru man dong mën naa ko campagne kon dama bëgg rek ngeen xam ne suma xel dal na te aw ma benn doute ci ne incha allah au soir du 23 janvier 2022 la victoire va retentir pour la grande coalition Gëm Sa may profito may profito ci assistance bi li wóor mooy ku jàkkaarloog ñii xam ne damay wax assistance de qualité parce que ñii ay nit yu qualité ñoo toog fii du ay nit ñu ñu sol ci ay kaar du ñu ay nit ñu ñu jox ay taxi mais li wóor mooy dajale mbooloo mu day nii biir Gibraltar yaakaar naa ne bu ma nee musu fi am waaye ku fi mitingaat dina la tàggu parce que wan nga leen ne yaay borom Gibraltar liggéey bi nga def ci Gibraltar kenn du ko naatable et nit ñi gisal nañ ko seen bopp yal na la suñu borom jox kattan yal na la suñu borom defal yool mën ko séddoo ba ñëpp mën cee jot vive Bamba Fall vive la Médina vive Gëm sa ci xol jërë ngeen jëf